jërë ngeen jëf mbokk Wassare Lamb ñoo ngi leen di jaajëfal di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax tey nag ñoo ngi fii ci jàmm gën seet ki nga xamante ne mooy Siteu waa def open press am fii nga xamante ni mooy pont bi mbokk yi gis ngeen fii ni mel làmb doo nga mën lii ba tax na tey ñoo ngi fii ci jàmm di def li nga xamante ni mooy open press bi Siteu nag ñëwagul mbokk yi waaye lépp loo xamante ne am na fi muy ambiance dañ leen ko jëlal bàkk ambiance lépp jox leen ko ci wasaare làmb di leen jaajëfal di leen jox ci kanam di leen jox dig daje ba ci kanam ma ànd ak Adama Adama ate nañ dem siki siki digi mbaaw mengi mengi yoo siki tele sama yaa ne jaay fii la ñu juddu fii la ñu yaroo fii la ñu baax ana xale yi ana bàyyi faali man so li ma ma état mais li ñu ma ne bëggul làmb papa may gis le contraire démb am na match de football bu amoon am nay alkaati semaine bi lamb war na am Ndar ñu ne alkaati yi duñ dem lamb war Mbuur ñu ne alkaati yu du dem ba lamb démb ji promoteur bi def lépp ñu téye alkaati yi kon man li ma gëm dama naan état bëggul lamb ba ba amay gis le contraire mais lu mel ni kenn waru koo yàq nañ ko encadré ñu respecté mesure barrière li des ci saison bi bëreetul un moo ci des su paree ñu continuer balaa booba sax yàlla na fi mbas a continuer suñuy bi ñëw am la. léegi xam la moo bees. day woote ne day bëri. ay waay rëcc sa biis yëpp rëcc sa biis. déggoo ji moom du ma ko wax xam nañ lu ñuy bëre ndaama xam nañ lu ñuy bëre njool. dinañ ko conseil suñu poulet bu ñuy utiliser loolu dañuy ñaan na i jour ci yàlla ànd ak am nañ ci yaakaar bu baax nag ndax lépp luy maye ndam def nañ ko mais ndam nag kenn moo koy joxe muy suñu borom yàlla na ànd ak ñun. nit ñi comme corona dafa am feebar dafa am lan ngay yab nit ñi pour buñ demee ñu mën koo tax. non ñu respecté mesure barrière yi ah, ndax ah, ndigalu docteur yi nañ ko respecté mais li ma d'accordul marché yaa ngi fees del ay soirée ngi am lépp a ngi am ñu bëgg ne lamb ju am nañu respecté mesures barrières nañu bàyyi suñu lamb ji ndax marché yaa ngi fees del cérémonie yëpp a ngi am ñu bëgg a téye lamb man góob ma loolu jërëjëf. xoolal mbokk yi mbooloo mi moo nekk noonu ci oto bu giri bi xoolal Siteu ngi noonu maa ngi seen Mama wala boog Abou Ndiassé ci kaw oto ba Siteu ngi noonu na Siteu ngoog di daw ñëpp di sant ñëpp di wax ne jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaw li may wax nag bariwul nam na rek eh Balde Balde rek ko caméra bi leerul de moom de ma am combat muy le premier août combat mu nekk combat boo xam ne sama combat capital la ma préparé ko ay ñaari at ñaari at daa waajal kon maa ngi ñaan yàlla na ñëpp ànd ak na ñëpp ànd ak li nga xamante ne mooy. dégguma di jégalu nag journaliste. journaliste lu tax mu leen di jégalu mooy yéene bu ñu am. mooy passé bu ñu am micro bi daan na ci biir de kii càndu kii. waaw non gisoo li ma téye mënu ma ko génne. ah sama loxo man mënut a génne kii kii. sant suñu sëriñ sëriñ du ma fi nekk di poser bi nekk tey daw chaque jour di uti lu ñu juwal loo xam ne dañ koy yóbbu pour suñu yaay yi dañuy dem di uti loo xamante ne pour suñu njaboot pour suñu dëggandóor yi mais li nga xamante ne mooy suñu liggéey nañu si bàyyi xel bu baax muy état bi man état laay waxal maa ngi leen di ñaan yàlla di leen wax ne si lépp loola ñu sensibiliser rek ñu ngi ci mais di leen ñaanaat di leen ñaanaat di leen wax ne ñun ñoo ngi ci banlieue bi ñun ñoo ngi ci banlieue bi banlieue bi lañ nekk ñii seen loxo jot na ñii seen loxo jotul te lu ñuy dund ku leen fekkul si loolu mënoo ko xam kon ma leen di ñaan yàlla ñun lii mooy suñu sport mi làmb te làmb mu yàqu mooy ndaw ñu bari dinañ échec làmb mu yàqu mooy ay jeunes yu bari dinañ échec kon ndaw ñi làmb lañ bëgg nañ leen jàppale mbëri mag yi nañ xool li nga xamante ne mooy yóbbu làmb ci kanam ñu koy def di kay wax di koy jëf ñu xool journaliste fi nekk ñu xool li nga xamante ne moo positif ñu koy wax di koy def ba làmb jëm ci kanam ndax ah, parce que ñun amuñu lu dul làmb xoolal ñi ma toog ñii dafa lu ma leen dara ñii gënu ma leen yaay gënu ma leen papa ñu bàyyi seen lépp topp kon ñii nii dañoo am benn sas boo xamante ne dama ko bëgg a fay di ñaan yàlla yàlla may ma ndam xooyaaw foole séeréer nu anaan leyaaw séeréer mu xooyam mi xooyaa nu anaan leyaaw séeréer di woo autorité yi fi nekk si dëkk bi ñëpp di leen wax ne nañu jàppale suñu combat bi ñu jëm waaw gisaguñu kenn sama xarit Babacar Xuma rek laa gis mu jàppale moom parce que xëy na am na ñoo xamante ne xëy na li may wax mu na leen arrangé mun na leen bañ a arrangé waaw man li ma leen di woo mooy sama làmb ji laay wax te man li may woote mooy si jàmm laay woote ci jàmm laay woote si jàmm laay woote waaw di sant sama sëriñ sëñ Sidi Mbacke alxuraan bu baax di sant Ndofène di sant maire fi nekk yëpp di woo autorité yi na ma ñëpp jàppale di woo Fatou Bintou Ndiaye gisaguñ ko mais ñoo gi koy xaar di woo Pam Mayel ñoo ngi xaar papa yaada bi gaañu maa ngi koy jaare di jaare sama doomu nday Fodé combat bi Fodé laa ko may combat bi Fodé laa may di jaare sama bàjjen Fatou Hawa maa ngi jaare yaayam waaw ñu gis ne Siteu tey da ngaa am dese waaye teewul da def open am naqar sama bàjjen ma def ko parce que nit ñi fu nekk la ñuy jógee jaale ki nga xamante ne mooy Pape Mayel ma koy jaale waajur parce que papa la ci man ku rëy man mais maa ngi sant ñi may jàppale di yëgal seen doole di yëgal seen alal di ma koy jox ku mel ni Papa Dan di sant waa Gàmbi nag waaw di sant waa Jonwaar di sant waa Jàmmagën samay xarit tarkindaa yi di wax ne affaire bi open press bi pour mu mun a yegg pour mu mun a yegg open press bi na ñëpp anière ñu baaxu ñu baaxu baaxu bi nga xamante ne moom lañ génnee bu ñëpp aniyeerul man du ma damay damay damay damay aniyeer damay ñibbi bu ñëpp aniyeeree ma baaxu baaxu bi nga xamante ne moom laa pare pour indi waaw di ñaan yàlla ne ñëpp génn baba laaj